mu ne ad darsu rabia darsu ñeenteel bi albaytu kër gi fil bayti si biir kër gi almasjidu jàkka ji fil masjidi si biir jàkka ji almaktabu taabul bi alal maktabi si kaw taabul bi asariiru lal bi ala sariiru si kaw lal bi ayna muhammadun ana muhammad huwa moom fil xuufati mu ngi si biir sal bi wa ayna yaasir ana yaasir huwa moom fil xammaami mu ngi si bi wa ayna amina ana amina hiya moom fil matbaxi mu biir waañ bi ay na kitaabu ana téere bi huwa moom ala maktabi mu ngi taabul bi wa na saa bi hiya moom ala sariir mu ngi si waañ la almatbaxu waañ la li la la mu ne waañ la ajib tontu an asalatil atiya si laaj yi di ñëw mu ne tontu laaj yi di ñëw ay na ana téere bi nga xool yaay tontu yaay xool bu dee xam nga fu dee bi nekk nga tontu ko ay na Muhammad ana Muhammad fii tamit yaay tontu ay na saa ana Muntubi nga tontu ay na Yaasir ana Yaasir nga tontu ay na Amina ana Amina nga tontu Amina fil xuufati ndax Amina mu ngi si biir saal bi bu dee mu ngi si biir saal bi nga tontu a Yaasir fil matbaxi foofu tamit ndax Yaasir mu si waañ bi foofu tamit nga tontu man fil xuufati kan moo nekk. si biir saal bi foofu tamit nga tontu wa man fil xamaam ak kan moo nekk si biir wanag bi foofu tamit nga tontu maada ala maktab lan moo nekk si kaw taabul bi fii tamit nga tontu maada ala sarir lan moo nekk si kaw bi tamit nga tontu mujjantel baat yi mu ne dangay jàng lii mu la bindal fii après nga maas mujjantel baat yi almadrasa école fil madrasa si biir école fil bayt si kër gi ci biir kër gi albayt gër kër gi alxufatu saal alxamaam wanag fil matbax si biir waañ almatbax almaktabu taabul alal maktab kaw taabul alal kursi si kaw chaise lal alal téere fil masjidi si biir jàkka ji mu ne iqra jàngal waxtu ta nga bindi mu ne ak taaliba taaliba bi fii jaamaat mu ngi si biir université bi ak rajulu góor ana commerçant bi woo moom fi dukkaani mu ngi si bitig bi alqalamu big bi alal maktab mu kaw taabul bi ay na ana zeynabu hiya moom fil xuufati mu ngi si saal bi ana xob bi woo moom alal maktab mu kaw taabul bi ayna al mudarrisu ana jàngalekat bi huwa moom fil fasli mu si biir kalaas bi ayna yaasir ana yaasir huwa moom fil mirxaadi mu si wanag bi achamsu jant bi wal qamaru ak weer bi fi samaa'i mu ngi si biir asamaan si man fil fasli kan moo nekk si biir kalaas bi mu ne fii nag daf la andil tur góor ñi ak tur jigéen ñi mu lay wax ne tur góor bu dee tur góor moom ñaari maska lay am waaye bu dee tur jigéen moom benn maska lay am mu muhammadun boobu turgoo la moo tax ñaari maska la am xaalidun xaamidun xaamid yaasirun yaasir ammaarun ammaar saidun said aliyun ali abbaasun abbaas turu jigéen nag moom benn maska am amina aminatu amina zeynabu zeynabu fatimatu fatima maryamu maryam aishatu aishatu aisha xadijatu xadija safiyatu safiya raqiya raqiya mu ne raqiyatu raqiya iqa jàngal waktub tama bindi maa dabti awaaxir kalimaati ànd ak maas mujjantel baat yi mu ne fii dangay jàng nga xool mujjantel baat yi yaa koy maas xamid nga maas ko zaynab zaynab amina amina ammar ammar said said fatima fatima maryam maryam ali namaas ka xaalid ak xaalid abbas abbas aisha aisha muhammadun muhammad safiya safiya xadija xadija mu ne albaytu kër gi min albayti jugee si kër gi almasjidu jàkka ji ila almasjidi jëm si jàkka ji almudarris fii nag jàngalekat may wax ak muhammad mu ne min ayna anta yow fan nga jugee mu ne ko minal yaabaan maa ngi jugee yaabaan wa min ayna Ammaar Ammaar fan la jugee huwa moom minal siin mu ngi jugee siin wa ayna Xaamid ana Xaamid huwa moom minal hindi mu ngi jugee hindi ayna Abbaas ana Abbaas xaraja génn ayna Zahaba fan la dem Zahaba dem na ila mudi dem directeur wa ayna Zahaba fan la dem Ali Ali Zahaba dem na ila mirxaadi jëm si wanag fii nag tamarin ay jéemantu mu ne ajib tontul anil asilatil atiya si laaj yii di ñëw fii nag ay exercice la fii yaa koy tontu mu ne min ayna anta yow fan nga jugee fii fii daf la dafal fii ay tomb yow yaa koy tontu a anta minal Philippines ndax yow Philippines nga jugee fii tamit yaay tontu man mina siin kan moo jugee siin fii tamit nga tontu ko min ayna xaamit xaamit fan la jugee fii tamit nga tontu ay dhahaba abbas abbas son la dem fii tamit nga tont ak dhahaba ali ila mudin ndax ali jëm na si directeur bi fii tamit nga tont iqra jàngal waktub ta nga binde maa dabti awaaxir kalimaat ànd ak maas mu jëntal baat yi mu ne fii danga koy jàng nga baat yi alxuufatu saal min alxuufati min alxuufati si saal minal xamaam jugee si wanag bi al mirxaad wanag bi jëm si wanag bi al yaabaan dëkk la yaabaan al filibin tamit dëkk la minal hindi jugee ko hindi ila siin jëm siin mu ne iqra jàngal waktub ta nga bindi bin ayna fatima fatima fan la jugee hiya moom minal hindi mu ngi jugee ko hindi xaraja génn na al mudarris jàngalkat bi minal fasli jóge si classe bi wa zahaba mu ila mudi jëm si bi zahaba dem na attaajur commerçant bi ila dukkaan jëm si bi xaraja génn na xaamid xaamid mina ruufat jóge si bi wa zahaba mu ila alxamaami jëm si bi man xaraja min alfasi kan moo génn bi xaraja génn at taalibu taalibe mina mudarisati jóge si bi wa zahaba mu ila suuqi jëm si marché bi xadijatu xadija min a siin mu ngi jugee koo siin wa xaalit xaalit min al yaabaan mu ngi jugee koo yaabaan daan tegal xil faraaqi suyu weeti fii ma yeli su lu dikki xarfu jar xarfu jar munaasiban bu dëppoo mu ne fii fii fii baat yi dafa am si diggante bi dafa war a am xarfu jar yi mooy min ila fii ala mu ne nga xool boo xawantan dëppoog na moom nga dugal ko si mu ne téere bi si digg bi am na lu si war a nekk dakaa tëb mu ne almaktab alkitab téere bi nangam almaktab ak taalibu taalibe bi dakaa tëb mu daf alfasli si digg bi am na lu si war a nekk zahaba dam na xaamid xaamid mu tëb si digg bi ne aljaamiat si digg bi am na lu si war a nekk xaraja génn almudi jàngalekat bi tëb fii nii dam si almudarrisat yaa fii defar zahaba dam na muhammadun muhammad fii fii tamit dakaa tëb andi siin ak siin siin ak aliyabaan mu tëbaat fii mu andi aliyabaan lii nii yëpp yaa koy defar mu ne alkalimaatu jadidat baat yu bees yi almadrasatu école almadrax waañ alyabaan yabaan almudir directeur alfas classe alxufatu saal alsiin siin zaba dam na alxammaam wanak aljamiat université alhind hind xarajak yenn almirhaadu wanak bi asuq marché alfilibiin filibiin mu ne fi ala min ila mu ne yii nii mooy xarfu jar yi mu ne ad darsul xaamis darsu juróomeel bi nag said yaasir mu ne ko akitaab muhammadin hada yaasir ndax li téer muhammad la yow yaasir yaasir ne ko laa déedéet hada lii kitaabu xaamid téere xaamid la mu ne ko ay na ana téere Muhammad huwa moom yaasif ne ko huwa moom alal maktabi mu ngi si kaw taabal bi hunaa ko foofu Saïd mu ne ko ayna daftaru Ammaar ana kay Ammaar yaasif ne ko huwa moom alal maktabi mudarrisi mu ngi si kaw taabal jàngalekat bi Saïd ne ko xalawu man hada ya Ali lii bi kan la yow Ali Ali ne ko hada big bi xalamu hada lii xalamu mudarris bi ki jàngalekat bi la Saïd nekk ayna xaqibatul mudarris ana saak jàngalekat bi Ali nekk ay jéemantu ajib tontul ani di ñëw mu ne fii mu ne ana téere Muhammad nga tontu mu ne ayna tontu ayna xaqibatul mudarris ana jàngalekat bi nga tontu mu ne adif laafal al ula baat yu njëkk yi ila saani jëm si ñaareel mu ne kitaabu muhammadun kitaabun muhammadun nu mu ko waxee baaxut fii nag da andil na la ko fii nekk kitaabu muhammadin mu ne yii mu la waxal ni yëpp yaa koy defar comme nu mu waxee kitaabu muhammadin mu ne xalamun xaamidun fii nu mu ko waxee baaxut yaa koy defar baytun abbaasun yaa koy defar ruufatun aliyun yakoy koy defar daftarun saidun yaa koy defar mindilun yaasir yaa koy defar xamisun ammaar yaa defar sarirun xaalid fii tamit yaa koy defar mu ñëwaat fii ne maktabul maktabun al mudarrisu fii tamit yow yaa koy defar moom defaral na la maktabun al mudarris ne maktabul mudarrisi fii tamit andiwaan na ay yeneen yoo xamante ne moom defarut ko yow yaa defar ne miftaaxun caabi albaytu kër gi dukkaanun bitig attaajuru commerçant bi baytun kër almuhandisu ingénieur bi ismun tur alwaladu xale kitaabun téere allahu yàlla bintun xale bu jigéen bi at tabibu docteur bi miftaaxun caabi assayaarut oto mu ne jàngal waxtu te nga bindi maa dobti awaaxir kalimaati ànd ak maas mujjantal baat yi baabul madrasati buntu école bi fii mu ne nga mas ko ximaaru rajul mbaamu góor gi baytu xaamid kër xaamid sayaaratul mudir oto directeur bi mindil ammar musuwaar ammar ismu taalibu tur taalibe bi baytullah néegi yàlla fii kitaabullah si téere yàlla min baytil min baytil mudarrisi jigee si kër bi ala maktabil mudir si kaw table directeur bi mu ne iqra jàngal ayna baytul mudarris ana kër jàngalkat bi huwa moom baidun lu sori la alquran alquran kitaabullah téere yàlla la alkaabatu kaaba gi baytullah néegi yàlla la muhammadu muhammad salla yàlla dool xéewal allahu yàlla alayhi subhanahu wa sallam tam dool ko musal rasulullah yentu yàlla la xaraja génn na almudarris jàngalkat bi min rufatil mudir jugee si saalu directeur bi hada li baytu xaamid kër xaamid la wa dalika lale baytu xaalid kër xaalid la ibnu amar doomu amar taalibun taalibe la wa ibnu yaasir doomu yaasir taajun commerçant la baytul mudaris doom kër jàngalekat bi baidun lu sori la wa baytu taaji kër commerçant bi qaribun lu jege la hada li miftaaxu sayaaru caabi oto bi la ayna miftaaxul bayt ana caabi kër gi man anta yaa walad yow la kan yoo xale bi ana man ibnu abbas doomu abbas la wa ibnu wa ibnu man huwa moom doomu kan la huwa moom ibnu xaalid doomu xaalid la ana masjid rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ana jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam huwa moom fil madinati munawara mu ngi madinati munawara bintu xaamid doomu xaamid fil madrasati mu ngi si école bi wa bintu muhammad doomu muhammad fil jaamiat mu ngi si université bi ismul ismul mudarris turu jàngalekat bi saidun said la wa ismul muhandisi turu ingénieur bi xaalidun xaalid la amma amma taalib bàyyi tax taalib bi ganiyun ajrish la baabul masjid buntu jàkka ji maftuuxun luñ tijji la wa baabul madrasati buntu école bi muxlaqun luñ tëj la xaal xaamid xaal xaamid tantaay xaamid tantaay xaamid faqiirun aji ñàkk la sayaarat abbas oto abbas fi sharia mu ngi si mbedd bi ibnu man anta yow doomu kan nga ana man ibnu mudaris doom jàngalkat bi laa aynal kalbu ana xaj bi huwa moom taxta sayyaarati mu suuf oto bi kawin formel jumla mufide jumla yu am njëriñ bi mala il faraari si barab yu wéeti fii maa yëli si li dikki fii nag dafa am ay barab yoo xamante ni daf koo tëb dara nekk si foofu yow yaay yow yaa siy dugal dara mu ne commencement bi dakaa tëb ne albaytu kër gi muxlaqul luñ tëj la lu si kanam yow ya xool nga def ko mu ne muhammadun muhammad sallallahu alayhi wa salla yàlla dool xéwal muhammadun muhammad salla yàlla dool xéwal allahu yàlla alayhi suma wa sallam tam dool ko musal rasulu yenentu fu fii yaa lu dëppoog moom nga dugal ko si mu ne alquran alquran kitaabu téere fii tam yaa xool lu dëppoog moom nga dugal ko ana man almudarris jàngalekat bi fii tamit yaa xool lu dëppoog moom nga dugal ko si baabu buntu maftuuxun luñ tijji fii tamit yaa xool moom lu moom nga dugal ko si ayna ana as-sayyaara oto bi fii tamit yaa xool moom lu dëpp ak moom nga dugal ko si at-tabiibu docteur bi ba'iidun lu sori lu si kanam foofu dakaa tëb yaa xool lu dëpp ak moom nga dugal ko si xadiijatu lu si digg bi dakoo tëb mu ne mu andi xaamit fii tamit yaa xool lu dëppoog moom nga def ko si ne at taalibu taalibe bi at taalibu taalibe bi maksuum luñ dambule lu si kanam da koo tëb foofu tamit ya xool lu dëppoog moom nga duggoo ko si xaraja génn almudaris jàngalekat bi min jugee fii tamit yaa xool lu dëppoog moom almudir almudir directeur bi fii tamit yaa moom nga dugal ko mu ne sax yi wëraleel at tarki ba toggale at yi di ñëw alqalamu big bi ak taalibu taalibe bi fii lu si lu mujj li dafut ko yow yaa yaay xool lu dëppoog moo nga dugal ko si bintu xaamit doomu xaamit bi jigéen fii tamit yaa xool lu dëppoog moo nga dugal ko si ismul walad ismul xale bi fii tamit yaa xool lu dëppoog moom nga dugal ko si baabu sayaar buntu oto bi fii tamit yaa xool lu dëppoog moom nga dugal ko si a yàlla fii tamit yaa xool lu nga dugal si ibnul ibnu mudarris doom jàngalekat bi fii tamit yaa xool di dëppoog moom dugal ko si ñu ne muhammadun muhammad yaa muhammadu yow muhammad bi bu dee ko tu bu dee daa am yaa boobu benn maska lay am waaye bu dee amut yaa boobu ñaari maska lay am moo tax mu ne muhammadun muhammadu yaa muhammad yow muhammad nga muhammadun ñaari maska la yaa fii benn maska mu xaalidun xaalid yaa xaalid yow xaalid ustaazun ustaaz yaa ustaaz yow ustaaz waladun xale yaa waladu yow xale mu ne jàngal waxtu ta nga bind maa kalimaat ànd ak maas mujjantal baat yi fii danga koy jàng nga maas yaa ali yow ali yaa abbas yow abbas cheikh cheikh yaa cheikh yaa rajul yow góor gi yaa yaasir yaasir yaa amaar yow amaar docteur docteur yaa docteur yow docteur iqra jàng al misaal misaal al aati yi dikk suma kawin topp nga ferme latan ay laaj mislawu comme moom monsieur di junj ile su taaliya si photo yi di dikk mu ne kitaab man haza téere bi téere kan la fii moom daf laa dafal ay photo bu si moom mu andi la bu njëkk bi daf la kaa waxal yi si topp nag yaa wax yoo yaa xool lan la yoo tamit nga wax ko kitaabu man haza téere bi téere kan la deseenal la fii daf la daf laa deseenal fii big mu deseenal la fii simis mu deseenal la fële mu deseenal la fële kër mu deseenal la fii lal fii yaay wax bu nekk bu dee nga wax big kan simis bi simis kan la yaay wax ak kër gële kër kan lal bi lal kan mu ne ismun tur ismul waladu tur ja tur xale bi muhammadun muhammad la wa ismul bintu tur xale bu jigéen bi zeynab zeynab la ismul mudaris tur jàngalekat bi xaamid xaamid la maa ismul mudir la mooy tur directeur bi ibnu ibnu doom ibnu xaalid doom xa doomu xaalid fil madrasati mu ngi si école bi wa ibnu xaamid doomu xaamid fil jaamiati mu ngi si université bi ibnul mudarisu ibnul mudarris doomu jàngalekat bi fil fasli mu ngi si biir classe bi ayna mudir ana doomu directeur bi mu ne iqra jàngal maa yëli yiy dikk muraayan muraayan di aji saamuwante xawaid nutqi hamzatu wasli règlement tudd hamzatu wasli mu ne ibnu muhammad doomu muhammad fil iraq mu ngi iraq wa ibnu hamid doomu hamid fil hindi mu ngi hind xaraja génn ibnu tabibu doomu docteur bi fi minal bayti jógee si kër zaaba dem na ibnu taajir doomu commerçant bi ila suuqi jëm si marché bi ismul muhindis turu ingénieur bi faysalun faysal la wa ismu tabib turu docteur bi masudun masud la maa ismu rajul la may turu ibnu ibnu man anta yow doomu kan nga ana man ibnu wazir doomu ibnul wazir doomu ministre bi la alkalimaatu jadida baat i bees yi arrasul yenentu alkaaba kaaba al ismu tur al ibnu doom alam alam ndijaay alxaal alxaal tanta alxaqibat saak assayaaratu oto ashaari medd muxlaqun luñ teg taxta si suuf hunaka foofu almuhandis ingénieur bi sayaaratun oto almudarrisi almudarrisi jàngalekat bi mu ne sayaaratun mudaaf la almudarris mudaafun ilayhi la in uridu illa al islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu